du côté de la régie ñu ngi may euh, signale am na beneen page commercial mais du ñàkk dinañ ci dellu si avant ñuy euh, avant ñuy euh, gën a xuus euh, ci euh, mbir mi mais dañuy dem léegi tàmbali li nga xamante ne moom moo di émission bi ndax nee nañu ci pencum ndaw réew ma la ñu jëm pencum ndaw réew moomu nag ku koy jëm da ngay xam lan mooy pencum ndaw réew ma muy assemblée nationale googule koo xamante ne xam màcc na ci nag ndax yàgg na ci ay législature mu di président du Wade wax nañu tey lan mooy assemblée nationale ñu teewlu ko doog a ñëw ci suñu ay invités yi nekk ci plateau bi ak chroniqueur yi assemblée nationale benn kuréel la boo xam ne bii moom mooy toogal askan wi askanu Sénégal yëpp boo leen dajalee muy territoire bi tudd Sénégal mu am ay nit yu bokkul xeet bokkuñu diine bokkuñu waaso mais ñu bëgg nekk ensemble dañu am benn dayo boo xam ne moom la ñu tudde souveraineté dayo boobu nag peuple bi moo ko moom ñoom ñooy dogal peuple bi mooy dogal ci dëkk bi mu dëkk mais comme ñun set millions de Sénégalais kenn mën leen dajale pour wax ne dërëm bi fan lañ koy jëlee ak fan lañ koy def ñu ne nañu ut ñu leen teewal ña leen di teewal nag ñooy député yi fa ñuy daje mooy assemblée nationale bi bu ñu waxee wala ñu jëf boo déggee ñu ne assemblée bi nee na wala assemblée bi jëf na wala assemblée bi adopté na wala assemblée nangu na wala dàq na mooy député ya nga xam ne ñoom ñoo daje foofu ci biir assemblée bi fi ngeen tuddee hémicycle foofu mel ni pax te ñu nekk fa te di fa nekk gouvernement bi te këli élif nekk ci kaw foofu mooy loolu mooy assemblée assemblée bi donc da nga jàpp ne benn kuréel la ay nit yu ñu tànn la ñoo xam ne ñi ñooy wax te saa yu ñu waxee wax nañu ne askan yu moo wax ñooñu nag niñ leen di tànnee mooy dañ leen tànte ci ñaari anam ci lañuy jëm fan yi dañu nekk cent soixante cinq personnes téeméer ak juróom benn fukk ak juróom téeméer yi ak juróom fukk yi dañu leen di tànne ci biir Sénégal fukki ak juróom dañ leen di pare tànne ci bitim réew ci Sénégal yi xam ne ñoo fa dekk moom la ñuy wax les députés de l'étranger ñooñu bu leen tànnee nag ci anam yooyu ci élection yi nga xam ne ku raw gàddu la maanaam dakaar Pikine Louga ku raw gàddu ak liste bi nga xam ne liste national la ku nekk da nga cay am ca dayo ba nga am ci ay voix la ñuy jël jox la ko ñooñu nag bu ñu dajee ñoo tudd assemblée nationale. mooy bu njëkk ba dañu amoon liste nationale rek benn liste unique boo xam ne bii ci lañ doon tànnee député yi ñuy 60 ba 80 ba àgg 150 ba àgg 165 tey booba ku raw boo dee bu ñu amee téeméeri électeur téeméer 100. yow nga am cinquante et un jël yëpp yaa jël soixante députés yi wala quatre-vingts députés boo temps list nationale rek moo am parce que boobu jamono benn parti unique rek moo fi amoon de fait mais bi Ablaye Wade créé parti ba ñu ba ñu ëgsi nag ci dem ay élection ci la ñu commencé indi liste proportionnelle maanaam yow mën nga fii nga raw gàddu mais fii dañuy séddaloo ku nekk doole ba nga am maanaam téeméer lañu fukki député la ku am fukki député yu nekk am nga benn yow 20 nga am ñaar ngay am ki am 30 am ñett ki am 40 am 4 loolu mooy indi équité bi loolu mooy tax assemblée bi gën a nuru réew mi ci lay tax parti politique yëpp feeñ loolu mooy moo indi ñaari liste yi mais ñu dem nag ba nga xam ne dañuy yekkoon à égalité léegi dañu dem nag ba nga xam ne raw gàddu bi moo ëpp lool séddoo bi te réew dañ koy séddoo. muy euh, rubrique boo xamante ne di ngeen ko am euh, durant campagne bi yëpp muy euh, rôle de l'Assemblée nationale ñu jël ñoo xamante ne c'est des sachants ngir ñu wax askan wi lan mooy Assemblée nationale ndax ba nga balaa nga naan naam danga fay ne ba noppi si la ñuy soobu ci waxtaan bi suñu ponk bu njëkk ñu namm ko waxtaanee mooy mort accidentelle de Mancabou que deviennent les lois contre la torture yi nga xamante ne loi yooyu Assemblée nationale lañ ko wotee tey jii Euh, ba askan bi war koo jëfee ñëpp war koo wàccoo li ni mel fan la mujjee ba li ni mel koy nemmeeku itam ci réew mi euh, Ibrahima ñi ngi yow la njëkkee kàddu bu njëkk gi ci euh, ponk googu gannaaw ba nga xamante ne nee nañu kii di François Mancabou dafa faatu te faatu gi ab l'accident la. jërëjëf soxna Awa balaa ñuy tontu ci question bi dañuy inclin incliné wu ci mémoire ki nga xam ne suñu fierté la ñun waa Kaolack muy Sidi Lamine Niass parce que képp ku juddoo Kaolack rek euh, fierté la Sidi Lamine mu taxawal lu mel nii. nga mhm. teew fi donc dañ koy ñaanal yàlla euh, fa mu nekk yàlla na ko fa yàlla xare arjana mhm. te yokk leeram te gën a dëgëral nag fii nga xam ne li nga xam ne moom la taxawal muy Walfadjri euh, comme li may wax toujours faatu bu amee doo def lu dul ñaawlu ko waaye doo def lu dul ñaan tamit Euh, li ñuy ñaawlu nag mooy bëri na ci Sénégal loo xam ne dafay xew euh, te warut a xew xam nga ku gëm yàlla sax du ne warul xew waaye ni muy xewee daal mooy doy waar ba euh, doo ci mën na daal wax loo xam ne sax da am na noo koy waxee daal ñu ne gëmoo yàlla. Mm-hmm. waaye daal suñu réew mi am na lu fi nekk loo xam ne war nañ ko xoolaat. réew mi li fi xew doy na waar. nañu appliquer luwaay yi nga xam ne ñu ngi koy voté parce que tamit dara amul solo nit ñi am coono dem wuti ay mbir ba doon député ba am place fa ñu nekk tey ba ñu voté ay loi waaye bu ñu ñëwee loolu yëpp du ñu ko respecté cest réew mi dafa mel ni euh, amatul justice loolu la ñuy wax souvent te boo xoolee am na fi ay nit ñoo xam ne li ñu jàng euh, justice la jàng ko ay années mais réew mi kenn sentirul sa bopp ci doxalinu yoon maanaam dara doxul ci yoon chaque jour da ngay dégg nit ñi di kaas fi di kaas gauche di kaas droite donc li nga xam ne daal loolu lay wax ci nit ku wàññeeku dañu koy ñaanal yàlla waaye lépp loo xam ne am na ci loo xam ne teguwul ci yoon na jaar ci yoon. Mhm. loolu daal mooy la moo ci suñu kàddu. tey euh, mort accidentelle lañuy ñuy wax euh, naka nga jàngate euh, li bu fekkee ne ci réew goo xamante ne dañ ne yoon moo fi jaar te anam gi mu faatoo également ci ëttu takk der yi la faatoo procureur dégg nañu kàddu yi nga xamante ne yëkkati na wax ko. ndax kàddu yooyu yow dal na sa xel. Hmm, jërëjëf soxna Awa euh, li may wax rek xam nga dëkk bi moom euh, bala may commencer sax damay jaale d'abord euh, njabootam parce que génn àdduna fu mu am rek. Hmm. métit am na fa. mais nag lii da dul guléet pour man lii dafa doon benn loo xam ni mooy goutte la goutte qui fait déborder le vase parce que ay dee am na fi ay bavure policière am na fi ñu koy gis. te booba tey euh, ñu ngi wax ni ku artuwul rek di nga àtte boo loolu di fi am di fi amaat di fi amaat ba ci li ci mujj mooy euh, bi fi événement mars yi amee am na ñu fi génn àdduna ñu am image yu ñu gis ba tey jii kenn situewul responsabilité yi. Mm-hmm. loolu di continuer di continuer ba tey euh, bii passé aussi ñeenti nit faatu war nañ ci événement yi fi mujj ci affaire élection kenn waxul nu mu mujjee. léegi loolu ba tey ñu ciy déglu suñu loi yi suñu suñu suñ ñi nga xam ne ñoo ñoo yor euh, suñu suñu suñu justice bi mais ba tey daal mënaguñ ci am loo xamante ni lu leer la. Mhm. donc loolu dañ koy dañ koy dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu di ñaan à que ñu def enquête que ñu situer responsabilité képp koo xamante ni daan war na dal ci sa kaw ñu teg la daan boobu noonu. Mhm. waaye di génn di wax après bu ñu paree ñu classé ko sans suite loolu moom euh, mënatul nekk. Mhm. il faut que il faut que mu arrêté waaw justice nag ñun ci Sénégal. seetlu nañ ab taxawaayam xam nga tey mënoo jël rek ñëpp a bon. Mhm. mais tamit ñun boobu ba tey daal gis nañu justice bi ñu yor a chaque fois yu mbir yu mel ni bu taxawee taxawaay bi ñu war a taxaw mooy ni ko Pape Diouf waxee woon taxawaayam dafa war a ëpp seen taxawaay day ëpp da war a ëpp niñ liñ leen di xaar. ak fi ñu taxawee vraiment day am day am benn fossé bu bu yaatu daal bu yaatu mhm. euh, d'accord dina ci gën a xuus euh, Mame Gor tey jii euh, par rapport au propos de procureur ci euh, faatub euh, François euh, Mancabou tey jii ndax c'est des propos rassurants pour qualifier euh, ce la mort de Mancabou waaw merci Awa Diop Ndiaye li fi xew lu tiis la parce que bakkan moom fu mu jógee loolu dafa dafa tiis dafa diis parce que dañuy wax sax na benn bakkan moom bu faatoo mi ngi mel ni dañoo rey ñëpp mm-hmm. donc loolu lu tiis la donc euh, situation bu grave la moment yi nekk moment yu doy waar la moment yu doy waar nag euh, bu ci de procureur demee ba ñëw di ci prononcé wu dañoo war a sentir gravité bi mm-hmm. man loolu lay wax sax c'est sur la forme de la mm-hmm. communication du du, du procureur mais on un nom qui n'avait pas de remords du tout sur la forme euh, amul benn empathie bi mu war a am par rapport ak nit ku fi jógee gisuñu lool sur la forme te lool je pense que c'est une mauvaise posture communicationnelle euh, euh, boo xam ne ni peut-être bu ëllëgee dina ci dina ci gën a travailler. Mm-hmm. sur le fond aussi dina dina doonoo gis ay yo loo xam ne nii tamit dafa ñàkk cohérence parce que mënoo ne nit faatu na koo xam ne ni da ko jàpp tëj ko yow moomatul boppam. Mm-hmm. yow lu ko fa dal. yow sa responsabilité la mais procureur bu demee ba ne treize minutes waa ji mi ngi doon mbëkk am na nañ ay film am nañ ay vidéo loolu je pense que xaw ma loolu lan moo ko wax lool lool mais loolu c'est catastrophique mhm. c'est catastrophique loolu dama xamul nan la ko nit mën a jëlee di ko xalaat di ko wax parce que moom il est assez responsable mhm. il est responsable de, ils sont responsables la de, de la mort de de de de Alain mhm. parce que ñoom ñoo ko yor boo jàppee nit pour war ko juger da nga ko da nga ko tuumaal ne moo def lii yow war nga ko def protéger. Mhm. ba mu dem ca jugement ñu xool ndax moo ko def am defu ko fi mu toll kenn xamul ne def na kenn xamul ne deful parce que loolu la naan présumé innocent mhm. mais nga jàpp nit bàyyi ko ba mu dee nga ñëw ne gis nañ ko muy mbëkku ba dee lool je pense que mooy une faute avouée. Mm-hmm. Euh, c'est différent de parce que tey de il y a il y a eu deux deux deux deux il y a aussi la sortie du, du directeur de l'administration pénitentiaire kooku au moins il a assumé mm-hmm. parce que il a avoué sa faute parce que il, il a dit clairement que ñoom il y a eu des défaillances loolu moo waral Mamadou Seck dem mm-hmm. rëcc parce que bu bu prisonnier bu rëccee kaso même bu dee pavillon spécial hôpital Dantec lool ña ko doon garder ñoom ñoo. commettre erreur commettre erreur ñoom ñoo sàggan ba mu dem. Mhm. donc moom au moins il a reconnu mais tamit. mënta toog aussi tamit toog naa ko ñëwal ñëwal parce que hmm, da ngaa war a ñëw parce que da ngaa war a faju ba pare da war a teggituma nan ko seeti ils ont l'obligation seeti ko gis ko indi ko jox ko ay avocat atte ko mais faiblesse su propos yooyu maam góor hmm. toog naa nit ki ñëwal faiblesse yooyu ñu nemmeeku dans leur communication yaa ngi koy wax bi entouré bu procureur également bu administration pénitentiaire par rapport à deux détenus yoo xamante ne euh, ni ngeen ko peindre c'est des caïds c'est des gens yoo xamante ne tey jii ils peuvent déstabiliser tout un pays mu am benn légèreté avec euh, laquelle on parle de ces dossiers waaw loolu mooy euh, défaillance c'est un état ki qui a failli parce que mënoo wax ne da ngay lutter contre le terrorisme ne Sénégal nga nekk un pays très organisé très à cheval sur certaines choses yoo xam ne nii ñeneen ñi sax dañ naan ñun suñu organisation ñeneen amuñu ko on a une armée professionnelle on a des des magistrats qui sont bien on a des forces de sécurité ki sont qui sont professionnelles et tout léegi nga ñëw yow lii nga ne dossier terrorisme la dossier terrorisme nga ne ka nekk ci au cœur de l'affaire muy Pape du Seck yóbbu nga ko euh, jóge na hôpital jóge na ci kaso ga dem dem hôpital pavillon spécial rëcc keneen ki nga wax ne te moom it mi ngi woon au cœur de l'affaire nga ne léegi waaj waajooj tamit jàpp nañ ko mu doon résister ñu bàyyi ko mu mbëkk ba dee loolu c'est c'est c'est c'est c'est deux faillites loo xam ne ni état bi moo faillir pour quelqu'un qui pour pour pour pour des gens qui se targuent d'être des professionnels d'être des des gens yoo xam ne ils sont prêts mmh. à faire face au terrorisme je pense que benn réew ci monde bi duñ jàpp ay terroristes ay soit soi-disant terroristes di ko bàyyi di leen bàyyi ñii di dee ñii di ñi ñii ñii ñii ñii ñii ñii di rëcc mhm. parce que fi mu toll nii ñoom c'est un échec ah affaire bi dafa échoué te dara xewagul parce que ki la wax ne il est au cœur de l'affaire moom dem na. Mhm. yàlla na ñëw ak jàmm parce que ñun ñëpp moom la ñuy ñaan yàlla na ñëw te indaale bakkan loolu la ñuy ñaan kii nga xam ne aussi charge yuñ ko tegoon yëpp yëpp yëpp yëpp il est il est il est parti avec ses secrets donc loolu c'est une faillite étatique extraordinaire te responsabilités yi dañ ko war a situer et puis des têtes doivent doivent être doivent tomber. Mhm. parce que fi mu toll nii mënoo bàyyi ne affaire bi yaa a de y a ba pare. amul kenn ku nekk responsable je pense que lool il faut nit ñi gën cee taxaw seetlu ci ba pare gën cee ànd ak détermination parce que nag lu ñuy wax naan lu ëpp tuuru. lu ëpp tuuru Pape Doudou euh, tey jii bu fekkee ne ni ko maam Góor waxee avec beaucoup de légèreté ci loo xamante ne da nga ne c'est dangereux le danger est la et présent. tey jii ci anam yooyu ñu waxee ko ni li mel te li ci gën a graaw euh, ki nga xamante ne moo di François Mancabou ba muy jógee këram dara jotu ko mu agsi foofu ñàkk bakkanam également la responsabilité